waaw mais xalifa noonu la ko yàlla bindee noonu la mel jikkoom la mais d'accord naa ak moom ci démarche bi muy def. mais kooku ëllëg sunu benn voisin mën nañu tooñ def ñu lu metti mun ne ko baal naa la. voisin comme lan. non je veux dire maanaam njiitu réew. beneen pays. voilà non looyu bokkul. <laughs> kii moom la concerné en tant que xalifa Sall parce que moom la tooñ. mais ku tooñ suñu réew tooñoo xalifa réew mi nga tooñ. Hmm, boobaa démarche yi dana wute. foog ñu foog ñu mën a foog ñu mën départager def comparer entre état. ak nit ki ak nit ki. boo fa tollagul xam nga ko lu état. c'est xalifa l'homme qui a pardonné. qui est comme ça mais bu fekkoon dañoo tooñ institution wala tooñ réew mi du demee noonu. waaw donc xalifa am na droit mu baale yonent bi sa doon baale. jullit la en fait. yonent bi la ñuy mooy suñ mooy suñ référence. Hmm. suñu borom nee na fayu leen d'accord mais baal leen la ñu ko wax. mais ko mënul ngeen soog a fayu. baal la moo ko gënal su mënta ne fayul lu tolloog liñ la gaañ moom mën na baale fan laay xam. mais ma Diop ma Diop euh, li ñu wax na comprendre parce que man euh, affaire bi dafa dépassé sonu Khalifa dëgg la. Hmm. moom la ñu tëj dëgg la moom moo perte ay mandaawam hmm. mais les sénégalais yi ko jooy woon métit boobu noonu. Hmm. ba mere ci Macky Sall. tey jii ñu xëy ñu ne ñu ils vont discuter Barthélemy Dias ñu koy rendre compte affaire yu mel noonu. non xam nga ils vont discuter lañ wax. mais waxuñu instant ñu ngi discuter mun na bañ am lépp ay waxtaan la. mais on sait tous que am. non mais ak on le sait. waaw mais ak ñu xool termes de france yi mu am moo gën mu am moo gën mu am moo gën foofu mu ñàkk bañ am. en mais lan la ñuy waxtaanee. c'est important yéen lenn moo leen ñor. Hmm. mooy mu ñëwaat ci jeu politique. déedéet bokk na bokk na si luñ ñor. bokk na si luñ ñor mais dem élection xam ne perte nga ko avant amul sens. ndax fichier bu bon. ndax kóolu compte yoo xam ne baaxul. mais moom moo ngeen a bokk rek wala xul loolu. waaw non il faut ñu xon compte si mu ko waxee xam nga na xam nga na bokk rek. am na ñoo xam ne ils ils que bu ñu demee mën nañ bañ a gagné comme nangam ak nangam mais seen tour ñu ne nekkoon nañ candidat. non parce que Khalifa doon nañ ko xaar fu gën a kawe foofu en fait. mais bu ko loolu ñoroon dem kaso dañ ko ne woon bul bokk élection bi bàyyil jàppale Macky Sall Samuel deux mandats nga postulé mooy leen defuma ko ce serait candidat. il a été pressé dafa jàpp ne moom li mu bañal waa PS du ko nangu. Mhm. li mu bañal waa PS du ko nangu li mu waxoon waa PS ne leen fii ñu ànd ak Benno Bokk Yaakaar. Mhm. Benno day gën di di gën pata PS di gën di tuuti. waaw c'est ce qu'on a remarqué. c'est la vérité muy benn muy PS di mu ne man mënoo bañal PS loolu du ko nangul Macky Sall damay nekk candidat. Mhm. ñu jàpp ko tëj ko ba tey si la nekk il veut être candidat. il sera candidat incha allah. il sera candidat incha allah loolu moo leen di yóbbu ci dialogue bi ak yeneen point nga wax. ak yi nga xamante ne dañuy permettre ñu xool fichier électoral. mais fichier Sénégal sax am na problème ma Diop Diop depuis le temps qu'on en parle. am na am na vous avez gagné boobu noonu. si si mais dañ ko gën a parfaire fichier électoral dañ ko war lëmbatu chaque jour chaque fois élection war nañ ko mhm. war a lëmbatu war a génne jox <laughs> xool ñu xool ensuite ñan ñoo war a seetu élection yi. Mhm. dafa war a nekk ñoo xam ne dañuy indépendant. faruñu fenn waaw. loolu ba léegi dañu Sénégal. mais ba tey yéen a ngi yéen a ngi am doole. ministre waaw mais ministre intérieur Dakar dañu ngeen d'accord mais loolu baax na mais dañu war a gën a parfaire li ñu def. ministre intérieur mooy ca élection ba léegi. Mhm. dañ Abdoulaye dinoon na ko fi Macky indi ko dañ ko war a dindi yooyu boo ko waxtaanul moom moo yor mbir yi ni ñu koy dindee xalifa dañu leen bokk dafa leen a naa bokk rek ki yow ki ñu ki ñu ki ñu dugal kaso. ne la génnal nga ne du ma génne n'importe comment. Mhm. dugg kaso moo gën a metti tëdd kaso dafa yàgg trois ans. loolu ñuy jaay rek. du ma demal xool kan moo signé grâce bi Macky président Macky Sall def. kan moo ko signé. avocat Xalifa ko benn avocat Xalifa Sall signé ko. décharge la rek loolu. waaw mais waaw mais en mais mais mais. parce que grâce doo ko bañ da génn. si waaw mais xam nga bu ñu ko defee par force da ngay génn. Mhm. mais dañ ko wax mën a mën signé ma. bu doon benn bu doon benn avocat ba xoolal ban avocat moo ko signé avocat avocat Khalifa Sall c'est kooku moo mën a mettre loolu ne du ma génn n'importe comment ak sama bokk n'importe comment c'est que il faut ñu xool contexte bi mu ko waxee. Mhm. li am solo mooy nañu bokk rek. nu Macky Sall décidé ne nañ ko bokkee nag moo xam baax na ndax moom moo ma génnee si course bi. Mhm. taqal ma sosol ma donc man naa bokk rek nu ma si bokkee baax na moom moo xam nu muy may nu may dugalaate ndax moo ma génne su loo xam ne c'est illégal. maanaam daal maanaam bokk bi dafa war a nekk après ñu xool leneen. voilà mun loolu warul sax nekk condition et puis ñu waxee dafa dafa leer naa bokk rek. parce que moom si boppam moo ma génnee woon. Mhm. tàgguwuma bu may dugal ma du ma ko wax bokk. même bu amul effet contraire bi effet inverse bi ñu doon yaakaar. waaw parce que depuis ñu loolu lañ si bëgg a dégg. mais ki dugg kaso trois ans. ñu la gënal nga ne du ma génnee n'importe comment. Ah, moo gën a metti bokk élection mais bu ñu ko nee da ngay bokk mooy man naa bokk rek nu ma bokkee baax na parce que ki ko dugal da koo fekk si ay droit wam yóbbu ko taqal ko yóbbu ko kaso tëj ko mu nekk député mu konne bàyyi si kaso bi ñu lever immunité am teguñu ko fen ba pare xañ ko ay droit wam dindi ko mairie Dakar. dindi ko député. Mhm. ne ko mënatoo bokk. mais kooku mooy xam nu mu ko dugalee nu mu ko dugalee baax na moom mooy xam nu mu ko war a dugalee ndax moo ko tooñ dindi ko mu war a ay conditions bu dugalaat ko. Ah, tey jii ci seen gis-gis bokk boobu noonu nee ngeen nu mu ko defee baax na mais est-ce que amul voie bu gën moroom ma entre euh, modifier code électoral bi euh, ak def amnistie parce que am na ñoo xam ne euh, dañuy ragal amnistie bi ñu la xaale ci leneen am na ñoo xam ne tamit code électoral bi. dañoo jàpp ne sax euh, waruñ ci woon sax egg parce que du loo xam ne euh, suñu constitution la maanaam wala wala justice moo ko def mais volonté euh, njiitu réew mi la la woon rek. mais mun na koo mun na bokk sans amnistie. c'est possible ñu wax noonu la. mais su dee ki nga xam ne moom li ñor mooy amnistie dañ ko naan jëluñu ko Khalifa musul wax bëgg na amnistie musu ko wax musul wax ne bëgg na amnistie musu ko wax. PDS nee ñu wax ngeen ko. Macky Sall aussi wax na ko nee na wane ngeen intérêt ci amnistie bi. non c'est que. bañuñu ñun ñoo Sey Khalifa parce que yëpp ay acte politique la. dañ ko tooñ ci politique dañu bëgg mbokkaat ci politique. politique moo ko xañ politique moo koy dugalaat mais moom mosul taxaw ne bëgg nañu am amnistie mais Khalifa du moom rek mooy wax li ko neex. dialogue baa ngi nii dañuy xaar nit ñi wax ñu doog a jël décision ñu mun ànd ak Khalifa Sall mooy du ma bokk parce que dañu amnistie non non non dafa war a bokk comme ay mboromam parce que daf ko fi liggéey. te buñ bokkee nga xam